Finalement, match la bo xamné warul niru ak ben match parce que euh, day woné euh, fin ben compétition bu am solo rawatina kan. donc final final euh, les gens ont l'habitude de dîner dañ kay dañ ko dañ kay gagner, on joue pas la finale mais dama gëm ni bala nga gagné fin nga football. donc tay xalé effectivement on va s'attendre à un match très très très compliqué. effectivement li nga xamné solo buñu xolé xoolee seen ñetti match yu ñu joué souvent dañuy Yobu équipe euh, pour essayer de tirer au but mais li équipe Sénégal comme nous ngoy euh, je sais que l'entraîneur a assez regardé le match là donc dès très tôt il va falloir faire la différence les pousser effectivement à ne pas avoir ce confort pour xamné ne ko et je sais qu'aujourd'hui les garçons sont conscients de cela ils vont se battre effectivement pour faire la différence dès les premières euh, minutes. parce que aujourd'hui amul ñeu di xaar wala di xalaat leneen dañ koy football en première mi-temps pour gagner ko parce que Égypte wàññeeku na bu baax euh, ñun yàlla sutural nañu ñi ngeeg suñu effectif yépp maintenant final doo fa nekk di def leneen du football bu rafet du dara ndam la ñu bëgg ndam rek la ñu gis ndax xale yi ñëw def fulla def fayda comme waa Sénégal ni ñu manqué ñu manqué si biir terrain bi mais pour indil nu coupe bi ñu ngi dem ci final boo xam ni euh, wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla mën na nañoo am yaakaar ci suñu équipe parce que sunu gone yi won nañ ñu ko te te ni ni réew mi def ci match bi war nañoo won ni wax dëgg yàlla dëgg neex yàlla ren moom yàlla def ñoo war a dimbali ñu jël coupe dañu dañu wax équipe Égypte waaye waxuñu équipe senegal yaakaar naa ni Sénégal boo seetee ñaari mat yu mujj yëpp six bii la ci dugal juróom benn bii yeneen ñi dañ daan am ay occasion di ko lu ko luppe te yaakaaruma ne loolu dana dal Sénégal bu ñu amee occasion dañ ko dugal bu soobee yàlla. benn matchu tactique dina am euh, tey da nga am presque ñaari équipe yu gën a yu gën a aay ci ci Afrique kooku il faut ñu wax ko parce que bu leen fàttali que Égypte dafa éliminer Côte d'Ivoire éliminer Cameroun ba pare éliminer yu mag yi fii. ñun euh, tay Sénégal nous sommes en suñu ligne avec Edouard Mendy Idrissa Gana Gueye Kalidou Koulibaly Sadio Mané Nous sommes en wax Afrique mais man sax ñu ngi ñu ngi buntu mondial donc aujourd'hui, aujourd'hui un match tactique très difficile très physique le plus intelligent va gagner. final kenn ko joué mais bon euh, en dehors de toutes ces croyances ah, je crois que dès le ngi où wax naan dañuy télé a sen kaw. Mais je sais que les ils ont fait le vide autour d'eux, surtout sur le plan mental. Donc ça veut dire qu'évacuer une fatigue quelque part. Donc euh, si j'étais à Lyon, euh, j'aurais opté pour, euh, pour un bloc médian. Donc de Yakamti, mais surtout apporter beaucoup d'intensité dans le jeu et beaucoup de rigueur. Donc Defsi, beaucoup d'impact physique. Peut-être que Lolo aussi, Dinatah Nyom, euh, parce que bon, euh, ils ont joué un ou deux matchs de plus que le Sénégal bon si nombre de minutes yi quoi parce que ils ont joué 3 fois 30 minutes ça fait 1h30. 1h30, c'est un match plus une série de tirs au but donc ça veut dire que mentalement ils sont un peu fatigués mais je crois que comme li ñuy wax rek l'équipe jouer pour équipe Pour expérience pour les ils sentir cette fatigue parce qu'ils dinañ arriver à l'évacuer après maintenant, Yakamti, comme je dis, mettre beaucoup d'intensité dans le jeu. Peut-être qu'en deuxième période, les choses vont se décanter.